li ñu fi indi ak li ñu fi bàyyi muy yàlla sama borom maa ngi tuub di tuuble sama moroomi jaam yépp maa ngi sàkku ndimbalul yàlla ak xéewali yàlla yi nga xam ne da koo def ngir may ko jaam yépp amu ci soxla yàlla nag di ko tabe ku dul jeexle te bëgg ku ko laaj manee su koo jaay lu gën a kawe laaj ko ñoo ngi ko ciy laaj ak sant ko ngir moo sàkk ñu jaamu ko ak ñu sant ko maa ngi sant di santale jaam yépp maa ngi fàttali nag di tuubal yàlla sama borom di ko jéggalu di ñaan yàlla sama borom xéewalam yi nga xam ne moo ñu ko jagleel ba noppi digle ku ko laaj tab bu dul jeexal te bëgg ku ko laaj danga koy laaj mucc ak njariñ ak yokk di ñaan mu dimbale ñu te dimbale suñu diine lislaam ji mu fekk ñu ci ak ndimbal maa ngi fàttali asaka asakay mbay ci waxtu wii la képp ku man nanga ko natt te jëme ko fi ko yoon jëme innama sadaqaatu lil fuqaraai wal masaakin wal aamiliina alayha wal muallafati qulubuhum wa fir riqaabi wal gaarimina lépp ñoo ngi koy fàttali mat naa def nag bu baax a baax ndax benn ponk la ci ponki lislaam yi maa ngi leen di fàttali ñu góor góorlu ci julli juróom ak aj ci ku ko man jéggi baax na jé jéggiloon di sunu borom jéggiloon sunu borom te jéggiloon lu baax la nañu jéggalu sunu borom te jéggalu sunuy morom ku ci nekk la nga yéene sa bopp nga yéene ko sa morom la nga bëgg ku ko jëflanteeg yow nga tàmbalee ko ci sa bopp te ku ne. na seet la war ci diggam ak nit ñi te seet la war nit ñi ci moom bal ixtabir min nafsikal aadaaba wala tutaaliban bihil asaaba dangay gën seet la la nga gën koo seet la war ci yow a weer maa ngi fàttali li nga xam ne itam mooy ayóobu nafsi te mooy ayibi bakkan yi ndax lu jara la waaye sa morom bu tuddee sa ayib dalaa bëgg a weer sa borom nag bu tuddee say ayib dala koo bëgg jéggal kon nag suñu ayib bi moroom moom jarta tudd nañu yittewoo suñu ay bi bopp rek te lépp di jéggalu suñu boroom rekk ñoo ngi ñaan mucc ci musiba yi ak balaa yi musiba yi jóge ci lépp lu yàlla bind te mu jox ñu ci xéewale mi nga xam ne amu ci soxla te da koy jox jaamam yi rek kenn bañ ñu ci ëppale maa ngi ñoo ngi leen di fàttali alxuraan ji sëriñ bi bëgg lool ñoo ngi sant nag bari nañu ciy yëngu lool yàlla na ko yàlla nangu te ndimbal fekk ci. xasida yi itam def na ay njariñ yu rëy a jàng gi ngeen koy jàng sant nañu ci bu baax na jëm kanam. وفرنا بالشهوات àjjana sa bakkaar rek ko wër rek ko wër moom àjjana waaw foofu jiw see dugg si ma fàttali li mu waxoon te mooy xadis xuffatil jannatu bil makaarihi wa xuffati naaru bi shahawaati àjjana yi bàkkan sib rekk a ko war maanaam ku ci bëgg a dugg faaw nga jaar ci li neexul sa bakkan sawara yi itam yi neex bakkan rekk ko war maanaam topp li neex sa bakkan dala yóbbu ci safaan ma kon ñu bañ a topp bànneexu bakkan yi neexul ci bakkan itam bari na ca yoo xam ne doo dugg àjjana te jaaroo ci kenn ñoo ngi ñaan yàlla mu dimbali ñu ci jaamu ko ndax kenn mënu koo jaamu ci lu dul ndimbalam yàlla nañu am yéene jaamu ko te di ko jéem ndax am na loo xam ne sëriñ Tuubaa ko waxoon mu ne bu ma leen digalee soññu leen ba xol yépp jóg jëm ci bëgg góor góorlu seytaane fa muy jóge ma ngay tàmbalee ca naan am moom lii muy digle kenn da koo man ko dul mooma bu ñu ko manoon kon lu ñu indi ci moom moom kay topp ko rek lañu ci man waaye li sëriñ bi wax moom duñu ko jéem te fekk ko mënul it war koo jéem def li nga man ndax boo mënula matal ndigal yi itam te jéem ko dinga gën sa moroom yee ko deful waaye mënuma ko duma ko jëf seytaanee ko yàqee xel jàppee bi sëriñ bi moo ko daa wax da daa digle waaye saa yu noppee saytaane naan li mu wax ku ko man ku dul moom bu ñu ci am soxla nañu topp ci moom rek waaye ku topp ci moom def li mu wax télé gi moom bañeesu ko waaye naan jéem ko wóorul moom ëpp naa wax yàlla nañu yàlla dimbali ñu jaamu ko ñu topp ay ndigalam bàyyi ay tereem maa ngi fàttali li sëriñ bi waxoon ci koor gi da koo bëggoon a bëgg ba daa ko tudd lu bari ci xasaayid yi di ko yóbbanteeka yónnee moo gàmm gi da ko daa yóbbante it bu koor gi dee bëgg dem te loolu bari na ay bayit yu koy baax bu baax a baax ñaa aw di woo waxaa maa ngi sant bu baax di jéggalu di yaakaar bu baax a baax te sarax yi ñu di ko saxal te bañ koo def ci ab digg rek boo xam ne fa lay yem waxtu wu ne ñu di ko fàttaliku di fàttaliku jaamu yàlla ak ñaan yi ak sàkk sarax ak waxtu wi ñuy sàkk asaka itam yi bàyyikoo ci mbay ak ci yeneen xeet yi ñu ngi ñaan yàlla dimbali ñu te sàmm إني حسابك وتطويرها من الشيطان الرجيم سبح أعوذ بك من شر الشياطين وأعوذ بك رب بسم الله الرحمن الرحيم حسبي الله من كل شيء لا يغلب من كل شيء ولا يحفظ إلا شيء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سيدكم له السميع العليم أحي يا خير المحاكمين كلما تروني قبل وصولي إليه بنفسي آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إني من ثابت الرقم جلاء من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من الشيطان الرجيم من يحفظ سبحان رحيم بسم الله الشافي الشافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء ربك ولا في السماء والسميع عليم يا قيوم برحمتك فبما أوليمك بلا شيء ما ضرر يا رب العالمين سبحان ربك ذي العزة عما يصفون وسلام على المرسلين تقصدي كل مريد عليها خير بات للتقى يحبها ربما تب على مريدي جمعها فلهم الدارين خير جمعها اكتب لمن عاصمي بي يا كريم وطعمني بي بابا لا يليم بي جعل المريدين معاتي في كناتي واتصل نجمع